waat ci yàlla nag du de dëgg te nga xam ne yoon moo ko sàkku ci moom kon du ko mën a ñàkk def waaye nag nit ñu baax ñi ñoom dañuy ormaal yàlla ba nga xamee ne duñu waat ci moom sax la nga xam ne wóor na leen ne dëgg la waat ci yàlla nag loo xam ne moom ci dëgg-dëgg xam nga ne amut dafa diis lool daañu ko wax ci kanam moom kafaara alamaan bi mënu ko far rawante na waat ci yàlla ba fab alali mbokkum jullit bu addis ba da ko diisal lool lool daal di wax ne man iqtataa maala muslimin bi yaminin kaadibatin adxalahu llahu nnaar fa qiila lahu walaw cheyan qalilan fa qaala walaw qadiban min araak dane ku fexe ba jël alal jullit ci kaw rek nii loo xam ne du dëgg faaw yàlla dugal ko sawara doonte ñu ne ko doonte sax day wu tuutee tuuti mu ne waaw doonte sax ab bant la bu bokk ci garabu gaaw doonte ab socc la daal mbaa beneen bant rek bu mu tuuti tuuti ku waat ba nangoo ko ci ab jullit rek faaw yàlla dugal ko sawara day xamle dëgg-dëgg yi ngiñ mu ne mooy loo xam ne saxut nga bëgg a tudd turu yàlla mbaa wenn ci ay meloom mbaa ci ay waxam ni ki téere wàcc ci asamaan ngir dëgëral ne lu sax la lu wéral la bu ko kenn weddi mbaa boog nga bëgg a weddi ne nangam amut loolu mën naa tax nga tudd turu yàlla mbaa aw meloom mbaa lu bokk ci ay waxam jubloo dëgëral ne li amut loolu ngiñ la nde loo xam ne sax na ba noppi ni ki jëmm ji ànd ak xelam ak sagoom te kenn forcé wu ko moo ko waxal boppam ne nangam maa ko def mbaa nangam amel naa ko nangam mbaa ay seere yoo xam ne dañ leen doyloo seere ko loolu moom du aajowoo waat ñu saxul rek lañuy waat di ko jéem a saxal mbaa boog ñuy waat ngir bëgg a miim bëgg a dàq ñu bëgg a wax ne am na moom nag mu bëgg a waat ne amut bi tey it am na loo xam ne dañ koy tudde ngiñ te fekk na kooku waxut waat naa ci yàlla mbaa dara waaye su ne nangam duma ko def wala nangam danaa ko def wala nangam dana am mbaa nangam du am ba noppi nag tekkil li mu wax su deñee jaamu yàlla sàngam war na ma wala li mu wax su deñee sama soxna fase na ba tey loolu ngiñ lañ koy tuddee su ne waat naa ci yàlla duma wax ak góor a njaay wala waat naa ci yàlla marché bi duma ci dugg wala boog mu ne nangam duma ko def teg ca su ma ko defee jaamu yàlla sàngam dal may war nit mu ne duma wax ak góor a njaay su ma waxee ak moom rek warlu naa wool yàlla weer wala dox fii bu màkka mbaa leen lu ko nuru ci xeeti jaamu yàlla yi mbaa boog mu ne jëf sàngam duma ko jëf mbaa keneen du ko def daal cay teg ne su ma ko defee mbaa bu ko koo ko defee sama soxna fase na mel ne mu ne duma demati mu kër diw su ma dematee këram rek sama soxna fase na mbaa mu ne soxnaam boo duggati kër diw boo ci duggatee rek fase nga yooyu yëpp boo ko dee seetlu ak ñàkk def lawaat demoon am ñàkk def la nag moom di feet lam ne woon bu am amul rek ngi ñëm te di ko wut dara du ko ca war waaye nag loolee mu ne woon du ko def baa du am su ko defee kenn forcé wu ko ca ñu ñoom daal nay tebbiku li ki ba mu ne duma wax ak góor a njaay waat ko ci yàlla su waxee moom rek ñu ñoom tebbiku na ñu war a fay alamaan daañu wax alamaan bi ba mu ne duma dugg kër diw baa mu waat ni du dem marché teg ca ne su ma demee marché rek sama soxna si fase na buy dem marché rek mbaa mu dugg ci kër ga waxoon du ca dugg rek soxnaam daal di fase bu ne woon soxna si boo génnee rek fase nga bu soxna si génnee te mayu ko ci ndigal rek ñu ñoom tegg ko na soxna sa fase na su fekkee dafa waxoon nangam du ko def bu ko defee rek li la waxoon léegi bu dee koor gaa mu war ko bu dee dox ga dem màkk mu war ko ak xeeti jaamu yàlla yooyu loolu mooy xaaj bi njëkk bi waat ne nangam duma ko def mbaa nangam du am bi des nag mooy li ñu tudde yaminul xin si ngiñul teeñu benn weesu moo tudd yaminul birri yaminul xin si moom mooy mu ne nangam faaw ma def ko mbaa mu ne diw faaw mu def nangam bi mooy safaanu bële kooku moom li fekk muy def loolu rek mi ngi ci teeñu maanaam mi ngi ci tebikuk la mu waatoon ni ki bu ne waat naa ci yàlla faaw ma dem Tuubaa tey jii mën naa mu yem ci loolu mën naa mu boole ca ne su ma demul Touba war na maa woor nangam yi fan ba war na maa aji ak sama tànk mbaa mu ne su ma demul Touba sama soxna si fase na nga xam ne bi yoon moom ak doro ci def lawaat mën naa am na mu yem ci waat ko rek yem ca mën naa am itam mu jàll tekki ne bu tebbi ko jaamu yàlla sàngam war ma mbaa su tebbi ko sama soxna sa fase yu mel noonu kooku itam li mu ne faaw mu def ko bu ko deful rek bu dee waat ci yàlla dong ñu ñëma tebbi ko mu daldi war a fay alamaan su fekkee da ko ajoon ci dara it loola ajjiku na loola daldi koy war léeg-léeg nag mën naa am mu takk ko ci dat dañu topp dat ba ni ki bu ne woon balaa weer wee dee waat naa ci yàlla dinaa dem Touba la mu waat daal ne faaw mu def ko mbaa mu waat ne faaw mu am bu ko defee mbaa loola am rek jaanam wàcc na amut mu ngi koy teg waaye nag bu defut loola mbaa loola amut rek alamaan daal di koy war bu fekkee dafa waatoon ci yàlla keseem ci bu fekkee da ko ajoon ci dara itam loola àjjiku na bu dee pase ma soxnaam pase na bu dee jaamu yàlla gu waxoon ne bu deful lii mu war ko loola daal di koy war dañuy wax nag ne gone akub dof aku yéefar bu ñu waatee itam du tax seen ngiñ fasu nga xam ne ñoom ku ci waatoon loola tebbi ko it du tax alamaan war la ca boo ci ajoon fase du tax fase war la boo ci ajoon leneen tam du tax dara war la ca ku ñu forcé it noonu la dina nañ koo forcé rek dara du ko ca war kon ku nekk mukallaf te di ab jullit mooy ki nga xam ne su waatee tam tebbiku alamaan daal di koy war mbaa lam waatoon daal di daanu ci kawam dafa am yaari ngiñ yoo xam ne kenn du leen kafaara ci kaw nag suwaatee ci yàlla kese yam ca nga xam ne aju ca fase mbaa leneen bu njëkk wax mooy nawul yamini waat loo xam ne daal ñeme yàlla taxut nga waat ko nga jàppoon ne loolu rek a am gannaaw ba nag bañ ko seetloo la am bokkut ak loola mel ne nga gis sëriñu daara bi laajte ab dongaam nga waatal ko ci yàlla ne ko gis naa ko démb Touba moom dongo boobu bañ ko ne ni ko dellu fa ndekete yoo dañoo muroo rek waaye du moom loolu dara du ca war ndegam na nga waat ci yàlla rek yem ci noonu ne ko kaa gisoon démb sa donga baa lépp lu mu waat rek loo xam ne ñeme yàlla taxut daa jàppan ne noona la dañ ko seetloo nekk demewul noona rek te fekk muy liggéey ba noppi kenn du ko ca jàppal dara du aajow muy fay benn alamaan waaye nag bu fekkoon ne da ca aj fase soxnaam mbaa lu koy muru moom faaw loola war ko ni ki ba mu ko nee waat naa ci yàlla kaa gisoon démb sa dongo baa suy mooma rek sama soxna fase na suy wóor loo te du moom rek soxnaam fase waaye nag bu yemoon ci waat ci yàlla kese yem ci moom ni ñu ko waxe woon dara du ko ci war foofu nag am na teqale ndax lii lu mel noonu bu ajoo ci ñëw ba noppi mbaa lu teew lu dégul fay alamaan waaye bu fekkoon ne lii ñëw la moom bañ ci àggee demewul na mu waate woon ci ko njortam du teemu fay alamaan seetee biñ ko waxee fii mooy mu waat ba noppi teg ca insha allah su waatee ba noppi teg ca insha allah sëfale ko ca te jublu ci xolam li may waat kat maa ngi ko teg ci bu soobee yàlla bu soobul yàlla moom du am kon bu loolu amut it dara du ko ca war niki bu la kenn woon waatal ma ne doonte tuddoon na niki bu la kenn woon waatal ma ne bu gaawoo dana ñëw nga ne ko waat naa ci yàlla bu gaawoo ma ñëw insha allahu taala insha allahu jooju nga wax bu fekkee yaa ko ci jublu nga xam ne du rek danga ko tàmm wax wax ko du rek danga ko barkeeloo waaye danga ko wax ngir wane ne gaaw moom su ma ñëwut it yàllaa ci àndut bàyyi nga ko xel kon bu gaawoo boo ñëwut it dara du la ca war waaye nag day war booy war rek daal ci sësale insha allahu ji mbaa boog la tee nga sësale ko ca lu mel ne nooy rek la wala suqat ngànt loo xam ne mënoo ca dara waaye bu waatee ba teg ca bu diir door wax insha allah te amutoon benn ngànt dañuy jàpp ne dafa rëccu jàpp ne li waatoon du ko mën rek bëgg a wax nag insha allah ndax mu génne ko ca waat ga ba tey itam kat insha allahu su waatee ci yàlla rek yem ca day am njëriñ waaye su waatoon ci lu mel ne fase soxnaam bu ëndee insha allahu itam du ci am njëriñ léegi bu ne ko woon kër di moom boo ci duggatee fase naa la dal cee teg insha allahu taala ko it bu soxna si duggee kër diw moomee rek dal nay fase insha allahu jëm waxoon du ci am njëriñ al yaminu al xamoosu mooy mu waat ci yàlla ci loo xam ne da koy sikki sàkk dong da koy xel yaar rek jortu ko sax mbaa njort la dëgërul dara sikki sàkk dong lay def mu daal koy waat ci yàlla léegi mu waatal ko ne ko dama gisoon démb sa dongo ba dawoona te fekk na du lum jortu mbaa dara day sikki sàkk rek ba xam moomaam du moom amu ca leen njort bu dëgër mbaa boog mu ñeme yàlla waat loo xam ne wóor na ko ne demewul noona ni ki mu waat ci yàlla ne ko démb gis naa sa baay ca Tuuba te wóor na ko ne gisutoon baayam loolu moom day ak ñeme yàlla lool di bàkkaar bu réy réy boo xam ne daal alamaan du ca war waaye alamaan da koo mënta far faaw kooku day tuub rek tuub bu sell sell dogu ci bañ ko defati mukk mukk te ñaan yàlla jéggal ko te xësu wees ba noppi waaye nag nga seetlu foofu ne lii lu mel noonu kat bu dee ci lu jàll ba noppi la ca kafaara dul war waaye bu fekkoon ne day lu teew mbaa luy dëgmal si faw alamaan war ca ñu ma misaal rek nga xam lu la ba noppi rek alamaan du ca war ku waat ne nangam duma ko def mbaa danaa ko def teg ci ne bu tebbi ko rek doolutuma ab dilit soppiku naa yahoot mbaa nasaraan mbaa jaamu ko xiram mbaa yu mel noonu loolee mu waatoon bu tebbi ko itam dañ koy wax ne ko jigul sa borom rek ci wax ji nga waxoon waaye bu mu tax na nga jàppe sa bopp ak yahoot mbaa nasaraan mbaa jaamu ko xiram mbaa dara jigul bi rek moo la ci war waaye nag loo mën ci saraxe ak woor ak def lu baax def ko ndax tuube ko li nga waxoon maanaam ku wax ne mboolem li yàlla daganal ci man araamal naa ko ci saa bopp boo xam ne ko teg ci waat mu tebbi ko wala déet dañ koy wax ne ko du tax la yàlla daganal ci yow soppi ko lu araam ndax daganal ak araamal moom yàlla rek a ko sañ lu may nag fekk mu amee soxna wala jamono yi jaam amee mu amee jébéer jaam bu jigéen ki amee soxna mbaa mu amee jaam bu jigéen ci yooyu jamono day bu ne lépp lu yàlla daganaloon ci man araamal naa ko ci saa bopp ngay wax ne ko sa soxna si moom dal nay fase ñetti fase sa jaam bu jigéen bi itam araam na nga jotee teeg moom waaw dañ ko daal di goreel rek mu génn ci say loxo daa delluwaat ci soxna si ak jàmbu jigéen bi mu ne nag su fekkee ba mu naa lu yàlla daganaloon ci man rek aramal naa ko ci saa bopp daa teelu ci xelam ba génne soxnaam ne sama soxna nag bokku ci teelu it ba génne jébbéeram ne sama jébbéer bokku ci waxu ko ci làmmiñ waaye lam fas ca xol ba mooy gannaaw bu yooyu génnee ba noppi nag leneen lu yàlla daganal ci moom moom araamal na ko ci boppam waaw su boobaa kon ndegam génne ne soxna seeg jébbéer bi booliwu leen ci wax ji ba tey kon génn nañu su waxee wax jooju du tax soxnaam sa fase du sax jébbéeram boobu araam ko masal moomu siiw na ci fiq dañ koy tuddee almuhaashaatu almuhaashaatu dafa wax ne nag kenn ku ne boo dee waat te loolu du la seq kenn ci sa bopp rek la aju kon nañ lay bàyyi ci suñu yéene bopp la nga ne woon moom laa yéene rek moom la ñuy jàpp mel ni nga waat ci yàlla ne ko bisu alxames de laay ñëw bañ àggee ci alxames taxul nga dem fekk na yow boobu da ngaa jubluwoon daal man alxames yi nga xam duma ko jàng duma ko jàngale ci laay mën a ñëw xaw ma nag ci njëm la doon ba jeneen loolu nga yéene woon su boobaa sa ngiñ tebbi ko wut sa jaan wàcc na kenn du la ci alamaan bu ñu nee boo waatee lu aju ci sa bopp rek mooy nga waat loo xam ne keneen amu ca àq jum lay topp ngeen di ko war a lijjanti safaan bi nag mooy boo dee waat ci loo xam ne keneen da caa am àq keneen da caa am àq ba nga xamee ne la mu jàpp ne moom ngay waat moom rek lay nangu ne moom ngay waat bu bëgg yi dugal jëreen yéene naa bàyyiwaat jublu moon loolu itam kenn du ko faale mel ne ngay takk soxna am loo sartanteeg moom wala ngay leblenteeg kenn am loo sartanteeg moom loolu àqi jàmbur da caa nekk lu mu noonu moom boo dee waat bëgg ne nangam laa yéene woon duñu seet sa yéene ka nga seqal ba doon ko waatal rek lañu la ko ko jublu woon rek ne nga waatal ko ko lañu jàpp ne moom nga waat ca dëgg-dëgg mel ne ngay takk soxna mu ne la waatal ma ci yàlla ne danga may bàyyi fi rek ma takkoo waaye doo ma génne sama kër gi nga waatal ko ci yàlla ne ko duma la génne sa kër gi dama la fay bàyyi nga di ab takkoo bañ la ko maye nag ba teg ca ñaari weer nga daal di koy jëli foofu yóbbu feneen ne yow day su ngiñ tebbiku na nga ne déedéet ngiñ la tebbiku wut ndax laa yéene woon mooy su ma ko takkee danaa ko fi bàyyi nangami weer door ko fee jëli nag yóbbu feneen loolu kenn du ko faale dañuy jàpp ne soxna sa moom lam jàppoon mooy kenn du ko génne ci këram di yóbbu feneen takkoo rek lay def mbir moom kon ajuwul ci yow dong sa digganteeg soxna sa la la soxna sa jàpp ne moom nga waatan ci yàlla rek loolu la ñuy jàpp jàpp ne su ngi teggiku na nga daldi war a fay alamaan ak lu mel ne mu di la jaay dara marchandise mbaa leneen ngeen juboo ci njëg nga ne ko gaawu laa lay fay mu ne la waatal ma ci yàlla ne danga ma fay bu gaawoo nga waatal ko ci yàlla ne ko dinaa la fay bu gaawoo gaaw booba nag fayoo ko ca maanaam gaaw ba ci sës fayoo ko ca ñu ne la sa ngiñ tebbiku ne nga ne sama ngiñ tebbiku ndax baa koy wax loolu gaaw ba ci sësaat moo ma taxoon di wax jublu ma woon gaaw ba sës ci bàyyi wax ak moom rek dañuy jàpp ne kooka moom gaaw ba sës ci ba ngeen di waxante rek moo ko tax a di wax loolu it mooy tax yoon jàpp ne kon sa ngiñ tebbiku na war ngaa fay alamaan mu seet lu foofu ne bu muy giñ boolewu ca lu aju ci fase soxnaam mbaa dara waaye fii mu nekk nii bu ci boole woon su ma la fayut gaaw sama soxna fase na gaaw boobu fayu ko rek maanaam gaaw ba ci sës fayu ko rek dañuy jàpp ne soxnaam fase na lam ne moom la yéene woon ci gaaw ba ca toppaat yoon du ko seet ndax kim séqal moom gaaw bi lu jëm rek moo ko taxawoon di wax dane moom mi waat bu fekkee daa tudd ab baat boo xam ne daa matale lépp lépp du tee nag buñ seetee yéene moom mu ne nangam laa yéene woon loolu mën naa tax ngiñam du tebbiku ci kaw seet gañ seeti yéeneem ne la waxoon moom daa ëmboon lépp lépp mel ne muy takk soxna waat ci yàlla ne du takkaat keneen bu xësee takk kii gannaaw ba nag mu fase ko ñu tàggoo mu wëlbatiku takkaat ñu ne ko yow kat da nga ne woon boo takkee kookee doo takkaat keneen mu ne waaw boobu la ma jublu woon mooy li fekk maa ngeeg moom muy sama soxna waaye nag boolewuma ci woon kat bu faatoo mbaanu tàggoo loolu kon gis nga ne yéeneem moo dëggal ngiñam mu taxaw ci kanam àtte kat ak mu taxaw ci kanam ku xam yoon di ko laaj rek luy àtte ba ñooye moom ki wax ne ko sa ngiñ tebbi ko wut alamaan waru la dara waru la loolu mooy taxsiisul aammi taqyidul mutlaq nag lim ne waqu yidat bi niyatin bil urfi al mutlaq mooy baat boo xam ne boo ko waxee day tegtale dëgg-dëgg loola te du ko tënk ci genn wet mel ne boo ne yàpp rek te yóbbaale yàpp borom ñeenti tànk ak borom ñaari tànk ak yàpp njanaaw ak ba ci jën sax da ci dugg su waatoon ne waat naa ci yàlla duma lekk yàpp gannaaw ba ñu gis ko muy lekk yàpp luy naaw ñu ne ko sa ngi tebbi ku ne mu ne kat booba bàyyi waat booluma ci woon yàpp luy naaw dañuy jàpp ne wax na dëgg ngi ñoom teddu ko wut ndax ku topp yéeneem loolu lu mën a nekk la mu taxaw ci kanam àttekat ak mu taxaw ci kanam ku xam yoon di ko laaj ñoo ci yemoo dañuy jàpp ne ngi ñoom teddu ko wut nga xam ne yooyu yëpp yéene ji rek moo féetale ngi ñoom ci wet bañ ko ne sa ngiñ teddu ko wut laltaayu ngiñ laltaayu ngiñ nag mooy sabab sa nga xam ne moo ko taxa waat in fuqidat ndem ñàkkeef na yéene ji daa bëgg a wax ne bu fekkee ne kooku amul yéene ji ràññi ko joo xam ne mooy féetale lam waatoon ci ak wet kon buñ seetloo sabab sa nga xam ne moo ko taxoon a waat loola mën naa tax ñu ne ko sa ngiñ tebbi ko wut dara warula ca mel ne mu dem marché gis fa ñuy jaaye ndawal ranga gudd lool naqare àgg mu waat ci yàlla ne tey duma jënd ndawal gannaaw ba nag mu féex waaxu jënd yomb mu daldi dem jënd ko it dañuy jàpp na rek ngi ñëm tebbi ko wut ndax ba muy waat ci yàlla ne du jënd ndawal buuxante baag rangu gudd ga moo ko jaralutoon gannaaw bi nag gis na ne loola dañ ne mu dem jënd ngi ñoom tebbi ko wut ci kaw seet gi seet sabab sa nga xam ne moo ko taxa waat ba tey bu ne woon tey duma ubbi sama boutique ca marché ba waat ko ci yàlla fekk booba nag ñuy contrôler prix yi dañ faa ñëw di sonal rek jaaykat yi gannaaw ba nag ñooñee dem mu daal di ko ubbi butigam dañuy jàpp ne ba tey buñ seetloo la ko taxoon na waat ngi ñoom tedd ko wut bu ñu seetee ne amut yéen a jiitee ngi ñoom tedd ko amut saw soo xam ne mooy tax ngi ñoom bañ a tedd ko ba tey na mu waxee buñ ko seetee ci aada na waa foofu baaxoo waxee rek mën naa tax ngi ñoom du tebbiku tax bu waatoon ci yàlla ne duma war daaba fekk na daaba moom buñ ko waxee ca foofa li ci ëpp rek fas mbaam mbaam mbaa bax la lañ ciy jublu moom nag mu daldi war am xar te baatub at daabatu moom lu dukkat ci kaw suuf rek daabatu la kon bu waree xar day mel ngi ñëm tebbiku na waaye nag bu nee man kat bu ñu saa wax rek daaba lañ ci jublu moom laa jublu woon ci bàyyiwaat boole ma ci woon xar kon ngi ñëm tebbi ko wut ba tey bu ñu seetloo ne ngi ñëm kat moom nee na amul yéene ju koy tee teeñu maanaam ji teeñu ne ngi ñëm tebbiku na saw si nga waxoon amu ca aada bañ aada waxin foofu itam amu ca ñu seet ba xam ci diggante ni sharixa di waxe ak ni nga xam ne moom la baat bi firi ci luxa rek di waxe seet loolu mën naa tax ñu ne ko sa ngiñ tebbi ko wut ni ki mu ne waat naa ci yàlla du ma julli wallahi la usalli bu ne waat naa ci yàlla du ma julli baatu asalaatu day firi julli gi nga xam ci lislaam di firi ñaan rekk kon moom bu waatee ci yàlla ne duma julli su waxtu julli jotee mel ne tisbaar rek ñu jàpp ne ngi ñëm tebbiku na ba noppi ndax tisbaar jot na te ab julli la war na koo def waaye nag boo buti ko woon ñaan te fekk na baatu asalaatu di firi julli di firi ñaan buti ko rek ay loxoom ñaan bu ko ne woon ba nga ne wallahi la usalli booba ñaan yi ngay def duggoon na ca sa ngiñ tabbiku na mën na ne déedéet man shariha bu tuddee baatub asalaatu julli lam ci ëpp jubli rek mu julli gi nga xam moom laa ne woon duma ko def léegi léegi waaye ñaan ñu ma def léegi léegi moom boolewu ko ci woon ko it ñu ne ko wax nga dëgg sa ngiñ tebbi ko wut am na itam yeete bu ñuy joxe foofu bu mat a jàpp mooy ñun sax baaxoonoo waat ci fase sunu soxna waaye nag bu doon béréb boo xam ne ñoo aadoo waat ci fase soxna dañuy seet nañuy waxee ci aada ñu àtte leen ca noona nga xam ne kawaat ne nangam bu ko defee soxnaam fase na ak yu demee noonu ñu seet ba xam ñoom ci aada ñu daan waate ci fase ñu àtte leen ca noona waaye duñ seet rek baal yi ñun ci téere yi ñu koy jëfandikoo déedéet fenn fu ne la fay aada rek nañ leen àtte ca loola loolu nag lu mat a sàmm la ci wàllu fase